Amadou Lamine euh, booy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. voilà Amadou Lamine Boye euh, récemment ngeen génne benn euh, communiqué di dénoncer euh, gestion bi nga xamante ni moo am foofule ci agence bu couverture maladie universelle est-ce que si yaatal mën nga ñu expliquer exactement lan mooy problème bi. waaw soxna si li waral coow bi xam nga ne agence couverture maladie universelle. dañ ko teg pour mu jàppale population bi ci wàllum faj ak ci wàllum wërgu yaram waaye si si biir loolu depuis 2017 gannaaw bi premier kilifa gi gaañoo mu am ku fa nekk kooku nag bi mu ñëwee wax dafa nekk yàlla nit ñi amoon nañ ci moom yaakaar parce que mag la foogoon nañ ne bu ñëwee li président liggéey dënk ko ko dina ko doxal waaye bi ñu demee ñetti at ñeenti at suñu yaakaar dafa tas suñu yaakaar dafa tas parce que ni mu waroon doxalee kër gi doxalewu ko ma jël ñaari firnde ba ñetti firnde am na document boo xam ne moom mooy saytu lépp lu dem ci ak fi yelleefu liggéeykat yi ñu koy ooye accord d'établissement ma fàttali ne agence bi bi ñu defee remaniement 2019 dañ ko jël dugal ko ci ministère de la solidarité nationale de l'équité sociale territoriale bi nga xam ne Mansour Faye moo fa njëkk a nekk ministre délégué yi ak syndicat yi waxtaan ci benn document boobu nga xam ne moom moo ëmb lépp li nga xam ne liggéeykat yi war nañ ko am ñu dem ba trouver terrain d'entente ba signé ko waaye lu ñu jaaxal document bu ñu ko signé ba léegi commencé ko ci Mansour fay jaar ci Samba Ndiobène Ka ba tey ci Thérèse Faye Diouf directeur général bi nee na boobu daf ko réer gisu ko loolu nag jaaxal ñu lool te xool nañ ba xool bu ñu xoolee ba ci biir dañoo xam ne daf ci bi bi daf see dugal benn alinéa boo xam ne moom ci boppam gannaaw privilège yi muy am yëpp ci direction bi voiture carburant salaire euh, recrutement yëpp doyu ko mu ne bii dem retraite nañ ko jox soixante millions de francs fa soixante millions de francs fa loolu nag vraiment def ñu tiis def ñu ñaqare parce que xam nañ ne dund bi cher na location yi chair na lépp cher na te document boobu wax dëgg fa ñu ngi koy laaj ñu mettre ko en œuvre parce que am nañ liggéeykat yoo xam ne ñu seeni njaboot ñu ngi si vraiment guddi gi bët setagul parce que accord boobu moo leen waroon jàppale am na si ñoo xam ne ñu ngi dem retraite mënuñoo am pension bu xaw a tane parce que accord boobu moo moo moo ko traité tey am na ñoo xam ne depuis 2015 ñu ngi agence couverture universelle waaye amuñ benn avancement ñaar dërëm sax yokkuwul si seen salaire te xam ngeen ne président de la république si mbaaxam wax na ne yokk na salaire ñiy liggéey si nguur gi public mais moom nee na dafa langat daara di ut ku ko lankale ñu nekk ci privé bi am na arrêté boo xam ne dañoo ne nañ yokk salaire yu ñuy liggéey ci privé bi encore mu lank kandaare nee na ñun bokkuñ privé kon ñun buñ bokkul privé bokkuñ public fan lañ bokk loolu ñu ngi koy laaj nañu indi ay ay ay ay éclaircissement yu leer ba pare ñu gis à côté mu jël ay mbokkam ak ñi nga xam ne ay deretam lañ ak ñi nga xam ne da leen jege yokkal leen seeni salaire ñeneen employé ñoom ñu ñu bàyyi leen comme ñooñu ñooñu le bas peuple waaye beneen bi mooy bi nga xam ne ñun xam nañ ne bërëb liggéeykaay yi nekk ci nguur gi yépp am nañ ay banquages yoo xam ne mun nañ faa jaar pour am ay siège bañ a génnee xaalis bu cher parce que bu leen fàtte ne président génne woon na benn note boo xam ne dafa ne ñu nekk si liggéey bërëb nguur gi yëpp nañ ut ay ay bërëb liggéeykaay yoo xam ne location bi dina wàññeeku carburant bi dina wàññeeku ainsi de suite loolu moo tax tey ñu cité ñu créé sphère ministérielle administrative jëm ñaajo créé ko ci yeneen région yi yëpp moo xam Kaffrine la moo xam feneen ak feneen waaye moom doo banque dafa lank dem ne dafa négocier pour jëndal agence bi euh, siège terrain dem jam ñaajo dagg pa jënd nee na jënd na fa mille cinq cent mètres carrés si deux cent million de francs CFA deux cent millions de francs CFA boo defee calcul bi daanaka cent cinquante mètres rek daf lay dikkee ñaar fukki millions vingt millions la lay dikkee alors que mu day nekk loo xam ne juróomi yoon wala ñetti yoon terrain boo ko bokk mu ko boo koy jënd jam ñaajoo pratiquement mënul passer deux millions wala trois millions wala quatre millions loolu mu def ko peut ba léegi mënuñoo gis siège bi agence bi ñu continuer bi fay siège boo xam ne daanaka boo xoolee wàññi ñoo ëpp sax bureau yi loolu nekk na loo xam ne wax dëgg fa na ñu ngi koy ñaawlu ñu ngi woote premier ministre Amadou Ba mu indi si vraiment saafara waaye beneen bi. xam nañ ne agence couverture marque universelle nga wax communication am na réforme boo xam bu ñu ko defee li nga xam ne direction bi nga xam ne ma yoroon communication bi dañ ko dindi dañ ko supprimer la direction de la communication dañ ko supprimer si services régionaux yi amoon na lu ñuy woowee ay responsable de communication RESCOM dañ leen dindi ñoom ñëpp ñaar ñoo ci des Tambacounda ak Sédhiou léegi loolu yëpp amatul léegi ñu bëgg taxaw ne dépensé nañ cinq milliards cinq milliards laa la wax de cinq milliards lañ dépensé si communication te loolu kenn mënul si teg baaraamam impact bi mu joxe ana communication boobu tey foo wax ñu ne agence dañu communiquer ñoom ñu ne def ne cinq mille cinq milliards de communication ba pare jox ko ay bërëb liggéeykaay ay bërëbu communication yoo xam ne kenn xamu leen kenn mënul indi firnde bi loolu ñu ngi laaj ñu indi si ay saafara ministre tutelle bi Thérèse Faye Diouf ak le premier ministre Amadou Ba ak le président mu indi si ñu indi si ay saafara pour agence couverture maladie universelle li ko tax a mun ko satisfaire dañoo ne. nit ki boo nekkee fenn ba retraité dem na retraité depuis six ans mu ngi nekk ci kër gi retraité kenn ñemewul wax kenn ñemewul sëqat ku wax mu affecté la ku sëqat mu sanctionné la ku wax mu dagg sa salaire loolu nag nañ leen dafa dakk dañoo sonn dañoo tàyyi dañoo damm dañoo bëgg ñu dindil ñu kii Sénégal am na ay cadre yoo xam ne mun nañ yor kër gi fu mun munti nekk en tout cas na ko soxla askan bi tax a jóg gis nañ ne kii nag soxla askan bi taxatu koo jóg. boppam moo ko tax a jóg te loolu sax ñu ngi ciy profité pour wax ne nit ñi ku ñu mun ci falati léegi na nga def déclaration de patrimoine booy dugg ñu xool li nga am booy génn ñu xool li nga am parce que loolu dafa nekk loo xam ne tey moo tax organe organisme public yi moo tax mu sooxee ñun nag booba léegi ñu ngi muñ ñu ngi waxtaan ñu ngi négocier waaye daal gis nañu ñii ñu jàkkaarloo xamuñ négocier xamuñ négociation loolu moo tax nag ñëw si presque bi pour dénoncer ko pour ñu indi sa ay ay saafara loolu moo ñu tax a jóg. Mm. loolu moo tax ñu jóg nañ jox liggéeykaay liggéeykat yi seen àq ak seen yelleef fay leen seen seen seen prime de restauration signé leen seen accord d'établissement loolu la ñuy laaj pour ñu defaluñu ko. Mm-hmm. Amadou Lamine Boye avant ngeen di def communiqué bi est-ce que saisir ngeen autorité yi ngeen waroon saisir yëpp si situation bi nga xam ne yéen a ngi koy dund. waa soxna si dama ne ne xanaa déggoo li ma la wax euh, Mansour Faye wala ay service am ñu ngi may dégg accord d'établissement bi délégué yi dem nañ si moom du benn yoon du ñaari yoon dégg nga Samba Ndiobène Ka dem nañ si moom du benn yoon du ñaari yoon tout récemment balaa ak ñu def communiqué de presse def nañ communiqué interne wax ak moom nest pas mais mu tànqamliku bañ ñëw faale nit ñi dem nañ si moom buroom waxtaan ak moom si njëkk ak teraanga. parce que bu caaxaan passé dëgg des mot nañu mot nañu suñu kilifa la te am na ñoo xam mot na leen bàyyi dem nañu mu waxtaan woon njëkk ak teraanga ay service am ñu waxtaan woon njëkk ak teraanga mais faale wuñ ñu dañ ñoo ñàkkal fayda ne ne fii kenn ñemoo fee wax parce que ñoo fi nekk ñu ñëw téye agence bi ku ñu neex lu ñu neex moo fi am lu ñu neexul du fi am ku wax ñu affecté la ku wax ñu sanctionné la ku wax ñu dagg sa salaire ñun nag loolu dañ see sonn dañ cee tàyyi loolu moo tax ñu def lii kon fa ñu waroon jaar ñëpp. jàpp nañ ne jaar nañ fa yëglu yëglu waxtaan si njëkk ak teraanga waaye ñoom xamuñ loolu te wax defa nag yàlla nag li nga xam ne ñëpp a ko bokk li nga xam ne ñëpp a ko bokk ah danga nga si war a tey surtout surtout tey lu jëm si wàllum protection sociale ak lu jëm si wàllum santé parce que xam nañ population yi vraiment soxla nañ ko te yéen dégg ngeen problème yi nga xam ne dafay am si hôpitaux yooyu yëpp yaakaar nañ ne management bu bon moo ko waral nañoo bëgg. ki nga xam ne nekk na fi def na fi six ans dem na retraite juróom-benni at boobaak léegi na nañu président de la république utal keneen koo xam ne mun na yor mbir mi mu defal ñu ko ñu mun a liggéey suñu liggéey parce que ñun liggéey rek moo ñu tax a jóg liggéey rek moo ñu tax a jóg pour jaamu yàlla population yi nga xam ne bu ñu feebaree mun a jot ci paj bi loolu moo ñu tax a jóg loolu moo tax ñu dénoncé ko loolu nag dañ ci oo ku nekk président premier ministre Thérèse Faye Diouf ak bépp autorité boo xam ne mën nga ci indi saafara pour nga indi ci saafara pour que tey li ñuy esclavage bi ñuy dund ci agence couverture maladie universelle mu dakk est-ce que am ngeen euh, Amadou Lamine booy plan d'action est-ce que fas yéene ngeen dem grève euh, naka ngeen fas yéene def bu fekkente ni autorités yi réagiruñ waaw nee naa la lii moo nekk ñaareelu jéego bi ci plan d'action bi parce que njëkkoon nañ de benn communiqué interne ñoom réagiruñ ñu tànkam ko lii nekk ñaareelu jéego bi tey ci plan d'action bi buñ ñu buñ ñu buñ ñu fulaalul woowuñ ñu pour régler cette question la feyuñ employé li nga xam ne ñoo ko war a moom accoltablissement bi signé wuñ ko affectation yi muy def dindiwu ko ku ma am ndey ku ma amul ndey bi muy def bàyyiwu ko dakkalu ko dañuy woote assemblée générale woo syndicat yépp ñu ñëw moo xam SDT trois s moo xam SAMES moo xam centrale yi ñu ñëw def def assemblée générale suivi d'un point de presse bu paree ñu dem vers un préavis pour def grève parce que am nañ droit bi droit moo ñu ko reconnaître te loolu mais loolu nag bëgguñ fay yegg bëgguñ fay yegg lu ñuy ñaan. lu ñuy ñaan ngir yàlla na ñu jox li nga xam ne ñoo ko moom liggéeykat yi ku nekk li nga mérité na la ko jox loolu la ñuy laaj te mu dem noppaliku li ko liggéey juróom benn fukki at ak juróom wax defe nañ yàlla war na dem noppaliku fii Sénégal am na ay jeunes cadres yoo xam ne mun nañ gérer mbir mi président République indil ñu koo xam ne jeune la am na objectif am na ambition pour gérer mbir mi loolu la ñuy loolu la ñuy laaj loolu la ñuy ñaan. voilà Amadou Lamine Boye ñu ngi lay remercier bu baax a baax en tout cas ci nga tontu suñuy laaj. jërëjëf jërëjëf maa leen sant may fàttali ni Amadou Lamine Boye yaa ngi doon wax uh, ci turu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk foofu foofule ci agence bu couverture maladie universelle jërëjëf. jërëjëf jërëjëf.